yaay Fall mii na maanaam buñ fi dëkkee yàggul waaye dama jàpp te yàlla rek tax ak Serigne Touba Mbacké bisu tey jii ginnaaw yàlla yonent bi Sëñ Fall jox naa ko sama bopp àdduna ak àllaaxira sama kollëre ak yow tey jii boo ma ne woon fii ma faat la tey ma def jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira barki Seyduna Muhammad man kontaan naa si yow kontaan continuer li nga bëgg ci yow Serigne Touba yal na la ko yàlla defal ci barki maam Cheikh a kontaan wóor na Seydouna Mouhamed kontaan naa lool wax dëgg yàlla li ci des yàlla na ko Serigne Touba teel boppam yaay Fall kontaan naa jërëjëf jox naa la sama bopp àdduna ak alaaxira kontaan def leen nang rek def leen nang ñëpp a jàll incha allah. coow coow. boo ñëwee ci mbooloo war nañ laa mën a jox ko wax. kon sëñ Fallou am wax. mais yéen ñun ñëpp defar moo ñu indi yaay Fall taxawal wala ma jox ñu ko lii tamit seen taxawal mais yéen ni ngeen di protocole nii dafa ëpp quoi da ngeen di may nit ñi tamit ñun ñëpp kii moo ñu indi te Mouhamed non non def leen nang bu ñu bàyyee ay nit ñëw fii dëgg la yeneen protocole mais bàyyi la ñuy xaar tamit du dëgg te ñii tamit dañoo bëgg image wax dëgg yàlla. xew la gis seen mbokk du bari alal waaye jàmm ci la comme ni ko Baye Sall waxee léegi non bari na waaye tamit bu ñuy jàng jëmm moo ñu fi te ñun ñëpp dañuy defar rek du

fal leena ku am na ma gërëm ku ñàkki faal na ma xarab nee coow li coow li mana na lu mu wax yoonu sëñ Bamba wi ah. bu doon ab sëy la ah. nee na bu sëy bi tasee man la ñuy jox canli Cheikh Faal nee na Faal nee ku am na ma gërëm ku ñàkk ki faal na ma xarab nee coow li coow li mën a seera fal nee na ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Faal yëkkatil say baaraam may xool Amar Faal Seer Njaay lay lay la laaw oh. su la ko jaaralee jëlal su la ko jaaralee xamal maam Soro Fall. jërëjëf jërëjëf jërëjëf moo gën ñaa. ndax sëñ Touba dafa njaboot sëñ Touba dafa njaboot. mais yéen. damaa bëgg caméraman yi. ngeen yaay faal. day yaay faal piir. sàkketu yaay faal. da sàkketu muy la sàkketu murit la. ndax man Ouzin Keita dama bëgg glace bàyyi mais micro yi dafa bëri. teewu micro micro dafa bëri man Ouzin Keita dama bëgg glace bàyyi mais xam nga laa bëgg. ba ma ne kuy garas danga naan sëñ Bamba garas. waa kuy garas. eh ana tabara yi borom tabara yi ana borom tabara yi. Ouzin ngay laaj ci tabara. kii ana borom tabara yi. Ouzin ngay laaj ci tabara. tey tey kenn. Ouzin waykat la léegi ma ngay laaj. vraiment boo nekkee artiste. waaw. du mbalax kese ngay woy ndax da ngay jàng Seydina Mouhamed yaay nga ma de da ngay jàng si Sëñ Saalu Mbàkke yaay nga ma da ngay jàng si Karas ndax olof jaay nee na xar yaa nga ndaam bay yaa nga ndaam ah. Sëñ Tuuba Mbàkke Karas bàyyi mbir ah. nan ka kaa fayee ah. ndax Sëñ Tuuba sonal seen si muy soxna Jaara Buso moo tee sàkke tee xeri fànne taw tee ndax man Ouzin Keita damaa nekk kër Sëñ nekkul kër Alaaji Baara uh-huh. nekkoon gol bi dëkk bi naan dëkk may ñaay gol bi uh-huh. falaa daano si garab daqaa uh-huh. falaa daano si teen falaa joomee ba tey jii moo tax ma ko kuy galaas eh, kuy galaas waaw waaw ana borom tabare dëgg la la dëgg la yaay Fall kontaan naa kontaan naa kontaan naa macha allah macha allah kon Mouhamed Niang kontaan naa si ñëpp damaa fekk borom tabay waaw bëggoon naa ñu xam ne man li may xol lay waxee waaw du du du ma def loo xam ne damay gis tal damay def xol te yàlla tax nga xol kese laa maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax yàlla fi jàmm yàgg si bëgg seen naa mooy sang-sang yi mais jërëjëf